li ci yéene kaay yi. li ci Omar Gueye àndal. mbokk noppi kii di président Macky gi moo yéem Walf Quotidien moo tax yéene bi di def ak laaj naan Macky noppeem gi mu noppi na patt jëm ci mbiri troisième mandat waxu ci defu ci neewul na déet loolu ay fem la ak lan moo ko tax a jug moom kooku le di président Macky Sall noppi gi mu nopp ci troisième mandat ne du ci wax ñu bari di ko ci xaar lan la nar kii di Alassane Seck jiite Ligue sénégalaise des droits humains ne Macky daal bu waxul ci loolu le na xam ne kàddu gu mujj gi moom askan wi ñoo ñu ko yor ak moom jaaree ko ci mbañ gàcce yi ndaxte bu neen kenn mënta def ñaari mandat yoo xam ne danoo tegaloo te def na ñaar ba noppi bu deen dafa dëgër bopp ba nekk candidat ñetteelu yoon askan wi dina ko lijjanti seen bopp Alassane Seck ci yéeni kaay bi di source an na mbajum kanam borom mooy ki koy fajal boppam ndaxte ay carte ñoo fal teg ci ay carte ñoo mën di folli te loolu lee la koy dëggal mi ngi ci yéeni kaay bi di yor yor xale yi daas fanaanal kay lanu def ndaxte rendi day berte jëm ci mbiri carte électeur yeeg ba biir ñu dóor ci suuf yor yor ni xale yi kay nunu songee commission yi sax dafa jéggi daay ci Grand Yoff foofu moom buuxante bu tar xale yépp ñu bindu ba ca tiwaanu Ziguinchor préfecture ba xale yi song nan ko waaye bu dee ca diwaanu Mbaaw ki di ba moo ne du joxe ay certificat de résidence ngir xale yi dem wote ji ca Touba Mbacké xale yi jàpp ni lii di commission ya fa ne ngir ñu dem bindu ji den kaa war yokk moo tax yor yor ne la mandat kii di Idrissa Seck gis ni moom moo jekk ci jiite réew mi te nee na yooyu àndul ci ñetteelu mandat moom kookile di Idrissa Seck yéen kaay bi di la moom idi jiixi jaaxa gi am ci digganteem ak kii di Macky Sall tey jii lay dóor coup bu mujj bi ci cybercampus ca diwaanu Thiès moom daamal kajoor ci yéen kaay bi di Sud Quotidien ñeel ñetteelu mandat ak dem gi mu nar a dem ci élection présidentielle yi tey jii lañu Idrissa Seck di yeewi maanaam lettuñu mbaa ñu firuñu waaye Idrissa Seck nag est du ay wax rek ñoo ko dese ndaxte idi nag daf mel ne train bi bàyyi na ko fi ndaxte ñi di waa Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi nanuy waaxoo dafa mel ne Idi mënatu leen dab maanaam jiitu nañ ko sànni karawaas teg ci Idi na muy delloo ginnaaw ni ab kus loolu mën naa tax ñàkk yaakaar ci moom naam tey jii dina wax naam am na yaakaar waaye yaakaar googu mën na tas ndaxte ku xool atum 2007 2012 ak 2019 Idrissa Seck élection bu mu dem rek mi gën di tar ak di gën di metti ci moom maanaam day dellu ginnaaw bu baax ci wàllu politique te loolu nag li ko indi mooy li muy lijjanti moo bari ba ay moom kooku di Idrissa Seck ñi seen mbir wéy di lëj Wade ak kii di Khalifa Ababacar Sall yéen kaay bi di La Tribune ne ñoom ñaar ñooñu le ñaari kaalande benn jafe-jafe mooy am ab ngir bindu ci liste électorale yi ba tey ji amagun ko moo tax élection présidentielle yu nu dem ci atum 2024 kii di Karim ak Khalifa Ababacar Sall ñoom ba tey ji mënaguñu bokk ndaxte bindooguñu moo tax yéen bi di L'As ne kay mi ngay nekk ci jafe-jafe rek ba léegi Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang atte bi leen a atte ci appel altine incha allah yéen kaay bi di Walf Quotidien Amady Diouf te jiite cour d'appel gën nare atte Ousmane Sonko ci appel moom koy atte boobu amu ci wàll teg ci ay avocat wu Ousmane Sonko buñ jëfandikoo yoon rek mën nañ fexe ba Amady Diouf du atte ndaxte moom nag mooy loxoom dafa tax ci mbiri Adji Sarr ndaxte bokk na ci ñi gàddu woon boobule dossier di taxal kii di Ousmane Sonko ci mbiri Adji Sarr tey ji ci mbiri Mame Mbaye Niang mu tax ci rëpp ginnaaw dossier bi ban ko sumbee moom mooy procureur bi ci dugaloon loxoom tey jii te cour d'appel te nit ki mënta far ba noppi di atte moo tax yoon dàq na a atte cour d'appel altine kon ay avocat wu Sonko mën nañu bind ne Amadou Diouf mi naam dafa far te wane féeteem ndaxte lépp luy dugal Ousmane Sonko loxoom ma nga ca kon kooku mënul leen a atte atte bi nekk daanu ci mbiri Pape Alé Niang moom Pape Alé kayitam yi mu bëggoon ginnaaw contrôle judiciaire ngir mën a génn réew mi dem ca bitim réew dem fi ngay wér di toog ci réew mi kon Pape Alé toogal fii fii baax na garab yu bon ya ñuy jaay fii ci réew di Sénégal ak jéggaani gën koy jéggaani ca bitim réew yéeni kaay bi di l'info jël juróom-ñeent fukki ak juróom ca garab yi ñuy jëfandikoo ci pharmacie yi nekkee fii ci réew di Sénégal garab yooyu la bitim réew lay jugee yooyu la garab nag Sénégal la mu cay def ca koppar bari loolu téeméer ak juróom benn fukk ci ay milliards la ñuy jéggaanee ca bitim réew di ko jëndee ay garab waaye garab yooyu le yenn saay mu am ay yu bonde rawatina ca diwaanu Touba Mbacké li naan ay faux médicament dañ ko fay jaay te nguur gi ma ngay taxlu ak di tànqamlu nangu cee wax dara jéem ci dara te yoon da koy ay bari na ay jàngoro yoo xam ne ay faux médicament ñoo koy maye ca Touba Mbacké la ëppee mooy feebaru réunion ak cardiaque ak yeneen ci jàngoro yoo xam ne dañuy të yi xam ko waaye dañ cee noppi na pat ci garab yooyu le waaye yooy jógee la ñuy jaar loolu la yéene kaay bi di na xalaat weer yoo xam ne fayu ñu leen ñoom liggéeykat ci nekkee ci aéroport yi ñoom ña ngay dànkaafu ngir mën a yem ci geraw laas ne jamono yi asamaan si lëndëm la yéene kaay bi di 24 heures ne ngi ci zone de turbulence kay jàmm nag ki ko amul jamono yi moom mooy Sadio Mané yéene kaay bi ne digganteem ak Leroy Sané bi Sadio Mané door sox tey jii la waa Bayern di ci daje waaye dogal bu njëkk bi mooy Sadio Mané écarté nañ ko ci week-end gi ci match bi waa Bayern nu fas yéene amal moom Sadio nag ñu koy xaar ci yéenekaay bi di source a ginnaaw daan yooyu le ñu teg ci kawam yéenekaay bi dee saat ne waa Bayern kay war nañ fa nu féete ci diggante Sadio Mané ak kii di Leroy Sané Sadio Mané nag mu mel na xolom moom moo jeex waaye nag nit ñi xamuñu ku tooñ waaye ku fay loonu xam waaye Leroy Sané wax Sadio Mané dañ képp kun sa jikko estat ne lañu jàpp ca kàddu yu mu ko la daal di kàddu raciste maanaam daal dafa ne ko noir de merde ma ne loolu kay warul woon merloo kii di di Sadio Mané ndaxte Leroy Sané bu xooloon bàyyam Souleymane Sané bu baax a baax balaa muy wax ak Sadio Mané di ko xas dina ko waajaat